حبيب عبد الله حدي مع المختار ndeysaan macha allah rek la ñuy wax kooku di Alioune ba Ndiaye ñu ngi lay ziar bu baax a baax fépp foo euh, mën ci euh, nekk euh, vraiment sa way wi moom gëm naa ne tout le temps rek dañ koy daal di soxla bu baax a baax chers amis téléspectateurs di leen ziar nag bu baax a baax di leen nuyu waaye itam uh, di leen jox seen wàccuwaay uh, gis ngeen nag maada bu jot rek uh, nii lay demee saa su ne dinaa ci ànd ak nag ki nga xam ne moo di Marina la plus belle Marina mu baax moom mi nga xam ne day féexal sama xol lool <laughs> lool lool bu macha allah waaye itam di nuyu képp kuy jàpp ci liggéey bi leen ci mel ni MD Maba bàyyi ñaari sooda Marème yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax fépp fu waay nekk rek ñu ngi lay euh, ziar bu baax a baax a baax wane ma nag gëm naa ne yéen yéen a ko euh, gën a waaye itam yéen yéen a ñu ko euh, gën a miis ndax nag heure bu jotee da ngeen di bàyyi lépp def jàkkaarloog seen i waaye itam ñun ñu am mbégte lool ñëw ànd ceeg yéen 14h30 bu jotee waaye itam ñi ngi fas yéene ànd ak yéen nag ba 16h incha allah rabi tey nag dama dañoo am gan gu mag macha allah ndax nag nee naa leen ku jógee dëkk ba dëkk da koy daal di dalal waaye itam teeru ko teral ko te nag wax dëgg yàlla Sen TV eh, ku ko xam-xam ko ci eh, cadeau Sen TV ku ko xam-xam ko ci eh, teranga ba tax na saa su ne daf ñu daal di neexloo ñuy jàkkaarloog yéen ci lu baax waaye itam di dab seen bànneex bu baax a baax a baax Marie mhm. sama waaj na mën naa la maa naka tey nii rek hmm, nga jox ma nekk sa ma chérie <laughs> maa ngi lay ziar bu wér a wér bëti Tilala di hmm. nuyu suñu mbokk yi nga xamante ne nii ñoo safoo la première chaîne waaye tamit damay ziar bu baax a baax sax suñu gan gi nga xamante ne nii ah. nee naa euh, comme ni nga ko waxee rek daa jógee dëkk ba dëkk pour ah. ñëw bégal li nga xamante ne mooy ay fansam mhm. waaye tamit bégal ñi nga xamante ne ñooy taalibe Cheikh Modou Kara yi ci kanam yi tuuti di ngeen ci am lu leen leer mhm. waaye nag euh, euh, waxtu bu tàmbalee ku ne xam na ne heure bu mag bi émission bu mag bi tàmbali na fii ci kër gu mag gi ndax nag boo ne wane mag ku ne xam na ne cent pour cent vente lay doon mhm. bu ñu ñëwee ci weeru koor gi def ko nag cent cent cant waaye tamit cent jaamu yàlla lañ wax waaye nag sama xarit koor gaa ngi dem de. koor gaa ngi dem waaw koor gi am na ay tànk nag. ma ne tey tey tey tey ñu ngi ci ñaata fan. tey est-ce que nekkuñ ci douze xaw moom fu mu toll nii moom moom waaru na moom. ba may laajte tey ñu ngi ci ñaar ñaata fan. waaye xam nga man sama genre bi man sama genre bi ñun. <laughs> ñun dañuy wor rek ñun lu ñëw dañuy wor rek jarul ñuy compter. Ah. jarul ñuy naan benn dem na ñaar dem na daal lu ñëw rek ñu xam ne ndogalu yàlla laa waaw lu ñëw rek dañ koy ah, maintien ah, bu baax a baax ne nag bu nekkoon cinquante jours sax dañ koy wor. ah dëgg du neex nag uteeg ñenn ñi de ah. mm, waaw sama xarit yu bëri woote nañ Baye Fall. Eh, lool loolu baax li ma jaaxal woor na woor dafa baax. waaw woor day tax nga. mais gis naa sa rose ah sa baax na. noonu mm, baax na ah, gis naa sa noir. ah noir prestige <laughs> doo xam. mamba nee na ki ñu saajal moo def ay ren macha allah. Mm, macha allah dama leen nuyu sax sama ñaari xarit yooyu nga xam ne ah, kenn ñoom de. ñoo ci ginnaaw di wax lu rëy lu ne ñoo ngi koy def. MD day wax lu rëy. MD moom ay yu garaaw sax sax moom nag lu ñëw mi ngi si biir mamba xam nga melu woon ni mais ren. Hmm. Mamba dafa doy waar ay changement gis naa ay tuuti jafe-jafe. Ah, ay jafe ci régime bi. Hmm. mais yàlla baax na daal maa ngi leen bu baax a baax sama xarit yooyu ah. <laughs> ñenn ñoom ngi leen di béggee bu ah, baax a baax ay ca wane ma nag moo ngi nii comme ni ko Marina waxee 100 cent vente 100 pour cent délire waaye itam suñu xeetu cant duñ ko fàtte benn yoon ndax nag koor gi ah, gëm naa ne dañuy soxla yooyu bu baax a baax a baax Ahmadou moom nee na kéemaan la. Hmm. xam naa lim jot a gis moo tax mu ne <laughs> koor gi métti na. kéemaan la ba tax na ñu ngi koy ziar bu baax a baax dañ koy bàyyi nag. mu daal di nuyoo ñu euh, dugga ñëwaat léegi ci euh, programme bi euh, tuuti incha allah waaye itam moom gëm naa ne tey moom 100 pour cent dina fi am 100 pour cent ambiance waaye itam gëm naa ne képp kuy taalibe Serigne Touba képp mm-hmm. kuy taalibe Cheikh Modou Kara rek mm-hmm. di nga kontaan lool Marina tey moom gëm naa dañoo dugg suñu kër macha allah tey moom ñoo ngi suñu biir ñu ngi lay ziar bu baax حمدي وشكري انكسارا له ردا دون سوخ عند سرسارا حمدي وشكري لمن كل به سارا له ردا دون سوخ عند سرسارا له سنائي وريد واني بلا سخات مسخد لي من بني ديمان أنصار لله كل لدى عبار مكرمة من أرتألنا وفي حجام منزارا إن الذين إلى sarsara xad xasado ziyaarati faraxu daaray ni aw sara barke borom Tuuba macha allah macha allah Ahmadou ñu am mbégte lool dalal la ci suñu plateau nga bàyyeekoo ba Thiès ñëw tey ci émission bii nga xam ne moo di wane ma mm-hmm. ah, ah, lan nga yëg ak lan nga bàyyi Thiès mm-hmm. alhamdulilahi allazi la allama al insana ma lam yaalam summa salaatu wasalaamu ala nabihi chafil ilam wa ala alihi wa sahbihi ma umila fawqa al wal awraxi al mhm. barke borom tuba ñoo ngi chaar bu baax sunu xalifa ñun ñëpp rek a cheikh mouhamadul muntaxa mhm. di ko ñaanal saa fanam aw cëram noonee la ñuy bu baax baax rek sëñ cheikh jëmb faal mhm. di ziar bu baax nag suñu wax dëgg yàlla suñu jàmbaar ji Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni. macha mhm, allah. noonee képp rek lañuy ñuy képp koo xam ne nii maanaam yaa ngi ci biir réew wala bitim réew rek te lislaam dong ñor la. Mhm. barke borom Touba. Mhm, ngi ziar nag bu baax ak a jaajëfal suñu waajur wu jigéen. Adja Ndeye Sow Fall ñu ngi koy ziar baax. di ko ñaanal saa borom defal ko jàmm bu baax a baax. dali ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax ana waa cees tey euh, euh, lan la ñuy lan la ñuy xaar ci émission wane ma bi ndax nag gis naa ne fan yëpp affice bi mi ngi daw ku ci nekk yaa ngi koy partagé mm-hmm. macha allah muy wane ne que waa Thiès dañoo feer ci yow mm-hmm. waaw loolu de moom wax dëgg yàlla dañ ci santaat bu baax a baax rek ku mm-hmm. tedd ki Cheikh Al Khadim ndax it Thiès wax dëgg yàlla dama naan sax Thiès ku tedd ki Cheikh Al la moo tax muy demee ni muy demee saa su nekk rek. Ah, dëgg la waaye it ñun moom bu ñu teewee rek yaakaar naa ni ñu ngi représenté waa Thiès gi yëpp. waa mm-hmm. Thiès gi yëpp daal ñu ngi leen di représenté. Mm-hmm. ba passé sax ñoo ngi ziaraat lu baax a baax a baax ki nga xam ne nii maanaam moo nekkal Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Lorraine fële Thiès. Mm-hmm. mooy sunu jëwriñ capitaine Kara Fall. di ko ñaanal saa borom guddal aw fanam wéral ak cëram. waa Thiès daal ñu fii <laughs> ci plateau bi. kon nag macha allah waa Thiès ñoom itam ñu ngi leen di bu baax a baax ndax nag am nañ fa ay mbokk yu baree bëree bëri ku ci mel ni eh, Mama Tall moom itam dañ koy ziar bu baax a baax yaay maam Jaara Bousso mhm. moom itam dañ koy eh, ziar lu baree bari mais nag Marina mhm. dañuy bàyyi Ahmadou mu daal di eh, dal tuuti rek mhm. ñu ñëw ci loolu nga xam ne moo di rappel émission bi ndax nag émission wane ma ñetti fànn la am na bu 30 000 francs am na bu waaye itam am na boobu nga xam ne mooy bu 100000 francs suñu xeetu buuñaa nag ci la nekk euh, kon mën ngeen cee profité bu baax a baax mhm. bi rek alors euh, damay sawar loolu tant petit boo ma waxee ndax nag ku ne xam na ne bu 85000 bi moom la équipe bi di déplacé wu mhm. Mhm. daal di ñëw ba fi mooy sa magasin sa place lépp li nga xamante moom nga bëgg ñu waneel la ko nga koy jaay ñu ñëw filmel la ko ah, ci njëkk ak teraanga soit nag man maa ñëw wala bëkkiti laa la wala mbay paccax mama jaxumpa wala ibundim wala mbay sa caam ñu ñëw daal di lay euh, filmer lépp lu nga xamante ne nii moom nga bëgg euh, wane ci 85000 francs dong lay doon. Béti Tila la. ci 85000 francs euh, rek lay doon comme ni ko Marie waxee déplacement bu am maanaa. Mhm. ànd ak suñu caméraman mu daal di ñuy détaillé seen i produits nga wax ñu sa adresse ak itam sa numéro de téléphone ci 33 827 52 00 33 827 52 00 heure boo ci woowee wootee rek incha allah di nga jot kooku nga xam ne moo di madame Dramé mu gën la leeralal lan mooy wane ma ndax nag bëgg cee bokk yomb na lool na boobu nga xam ne nag mooy suñu selfie une minute bi nga jël sa téléphone daal def sa selfie bu am maanaa wax ñu sa adresse ak sa numéro de téléphone ci 77 639 42 48 77 639 42 daal di lay wanee say bagage gëm naa ne Sen TV rek moo ko ko mën kon mën ngeen cee profité bu baax a baax gannaaw mooy télé askan wi moo tax événement bu ñëw rek dañuy fas yéene ànd ak yéen daal di leen di gunge ba mu neex pour ngeen yëg seen bopp bu baax a baax a baax MD boo ñu mënee may suñu euh, premier clip du jour ñu daal di koy seetaan daal di ñëwaat léegi ci plateau bi ay ayca noonu euh, macha allah lépp rek ci biir euh, wane ma lay doon ndax nag euh, ñu ñoo leen ko digoon 100 pour cent cant la ñu woote tey macha allah ki nga xam ne moo di abo abo macha allah waxoon naa leen ko léegi jugee ba Thiès macha allah abo ngi abo ngi reetaan mais yàlla ah, <laughs> wax na dëgg wax yaa reetaan ko defee noonu baax na mais noonu la sax avant dara xew ah, parce que à tout moment xam nañ la ngay dem muy dem ngay dem muy dem ngay dem muy dem ba doo xam ku ne la taxawal ci laala ndaw lu ma bëggoon laaj uh-huh. abo euh, comme ñoom euh, ñoom taalibe Cheikh Modou yi macha allah dañuy gis seen ay parole dafay riche dama xam seen parole yi fan koy jële ci cheikh bi wala <laughs> waaw uh-huh. na bu fekkote ni maanaam <clears throat> dañ koy wutal liggéey. Mhm. dañ koy wutal liggéey moom mooy di bind ci ku tedd ki. Mhm. moom nee na bu ñu ko doon wutal liggéey dañuy wax ni écrivain lay doon. saa su nekk foo ko fekk rek mu ngi mhm. taalif ci ku tedd ki. ndeysaan. moo ñun foofu rek la ñuy référé wu. macha allah yal na am tànk kanam. macha allah yal jëm kanam mais instant bi ni gis nañ ne koor gi. Mhm. cant yi day gën a bëri. macha allah te fi mu toll nii nag mën nañ mën nañ ne mën nañ mën nañ leen a woo yéen. Mhm. ngeen def déplacement dem cant yi ndax fi mu ni nii ngi leen di dal ci euh, sous région beeg yooyu. waaw waaw loolu mënta ñàkk. xam nga daanaka activités yi moom koor gi moom. day tegloo. tegloo daal tey nga dem fii bu soobee nga dem fee. Mhm. waaye nag dañuy delluwaat rek di santaat sunu borom ndax it suñuy morom ña nga ca leneen ak leneen ak dëgg la waaye it bu fekkete ne maanaam daf ñoo def ni ñu def rek kon loolu am dañuy dolli daal di ko santaat bu baax a baax a baax mhm. ci yoon bu baax bi ngeen nekk macha allah ayta képp ku bëgg jàkkaarloo ki nga xam ne moo di abo rek Euh, mën nga woote ci 88 628 89 90 88 628 28 28 ngeen bës ba pour mën a accès à l'antenne mm. daal di jàkkaarloo moom ci lu baax waaye itam ñu daal di waxtaan ak yéen euh, ci lu baax mari fi fu mu toll nii nag Facebook bi moom moo ngi moo ngi jax moo ngi jax ni waaw ñu ngi ñu ngi buuxante ah, euh, bëgg nañ nag ñuy partagé mm-hmm. loolu nga xam ne moo di émission bi ma mais en même temps aussi mm-hmm. di commentaire di dugalal loolu nga xam ne moo di seen numéro de téléphone mm-hmm. incha allah à tout moment suñuy sukkaru koor mi ngi fi waaye itam suñuy xeetu ndogu yu baax baax mi ngi fii ñu daal di jàkkaarloog yéen ci lu baax daf ñuy daal di neex lool ay Marie alors lu Facebook bi wax waaw Facebook bu falaa dugg ni euh, Faty Lala dafa mel ne nag Facebook bi daa gën a jax ah. gën naa jax ah, xale yaa ngi def ay kër yu euh, rose ñi ñoo ngi may cœur yu ver yu rouge yu noir vraiment ah. xale yi nee naa leen li ngeen di gën di partager ah di gën di aimer di commentaire ñun tamit comme ni ko Betty waxee rek suñu ay teraanga lañu yor ah mm-hmm. li teraanga yoo xamante ne ay sukkaru koor la dem kat Euh, tàmm nañ di ko def. vraiment ndax kon kon xam na ni. Mhm. seen TV mooy télé comme ni nga koy waxee. Euh, ngeen partagé rek ñu defal leen ay terrain ku ci mel ni Amilo. Amina Kane. Mhm. Willy Chamil Ousmane Gueye ñoom ñëpp ñu ngi ci biir Facebook live bi. vraiment nee nañ kontaan nañ ci émission bi ndax nag nee na wane ma. vraiment moo mujjee juddu waaye nag moo njëkk a baax. Ah, xale yaa ko bind moo ngi nii eh, moo ngi nii mi ngi noonu. Ousmane Gueye waxul li ah mi ngi noonu jeex na <laughs> preuve. njëkk a baax kon nag mën ngeen bu baax baax fii wane ma la. <laughs> yaa tey macha mi ngi noonu kon mën ngeen profité bu baax a baax euh, di partager loolu nga xam ne moo di émission bi di euh, commentaire aussi di envoyé waale loolu nga xam ne moo di seeni xeetu numéro mm-hmm. dinañ jël quelques numéros incha allah bala ñu euh, tëj émission bi rek mm-hmm. tànn ko daal di jàkkaarloog ñoom ci lu baax ay ca ba tey 88 la 628 89 90 88 628 28 28 ngeen bës 2 ay ca bu amee ku nekk ci ligne bi ñu jël ko MD allo Aïcha kenn ñëwagul mais mm-hmm. mën ngeen a dugg ñu jàkkaarloo génn ci lu baax waaye itam ki nga xam ne moo di abo hmm. euh, suñu invité bu mag bi daal di leen di cantal ba mu neex fu mu toll nii sax nag man cant laa la ma hmm. waaw dañoo bëgg affaire yi yëngu daal. Hmm. tey duñu may kenn dara fii dañ koy moom tey. waaw. allahumma salli ala sayyiduna muhammad adada ma fihil mila. salatan daimatan bi dawami mulki la allahumma salli ala sayyidina muhammad dada ma fi indila salatan daimatan bi dawami mulki la allahumma salli ala sayyidina muhammad ñëpp yëngu vraiment euh, yii daf ñuy daal neex lool vraiment abo moom wax dëgg ah, ah, na am na nee na nangu jël nangu jël na cëru bañ ah nangu jël na cëru bañ dëgg la nangu jël na cëru bañ waaw nangu jël na bi daa mel ni nit dañoo wootante dañoo wootante nit ñi wootante nañ de ñooñu mm. wax yu ne. <laughs> mari ne nit ñi wootante nañ nit ñi wootante nañ ñëw. nee nañ abo mii. waaw <laughs> dafa meilleur. dafa meilleur loolu la ñu wax fii. Mm-hmm. ku ci mel ni Seynabou Ndoye loolu la wax. Mm-hmm. Aruna Ndong. Mm-hmm. Njóoba Daam Lo. fi mu ne xoolal kër yi ah. Mm-hmm. macha allah <laughs> macha allah bëgg nañ <laughs> sax nag euh, Marina ñu daal di mm-hmm. dugg ci loolu nga xam ne moo di lay Facebook bi. Mm-hmm. Euh, wax incha allah euh, xeetu cant yi ñu bëgg. kii nga xam ne moo di abo. daal di leen koy cantal léegi rek incha allah. fii lay doon ci wane ma am na ku nekk ci ligne bi nañ ko jël allo. allo. Aïcha bu ngeen wootee rek da ngeen di uh, wàññi seen télé ñu mën a déggante bu baax a baax ci téléphone bi uh, ci lay gën a mën a neex Aïcha 88 la 628 89 90 88 628 28 28 ngeen bës 2 Marie nga Facebook bi ñu ngi wootante. ñoo ngi wax lu ne ñoom Batoor Diagne. Mm-hmm. Amadou Sey. man fi mu ne man daal dañuy wootan wootante dañuy wootante nan ndax lii mënta ne lii naturel <laughs> lii wootante da cee rax ndax abo mi. ah waa Thiès tey defati nañ seen mën ah waaw waaw waa Thiès saa yu ñëwee bett nit ñi de. seen ah, nanet saw mu baax mi nitu Thiès. macha allah nanet waaw mu baax mi sa jigéen sa xarit. waaw nanet moom wax dëgg yàlla. Mm-hmm. Euh, maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax. Mm-hmm. dëgg la waaw ku la bëgg la euh, vraiment. ndax it mm-hmm. sunu teewaay fii moom. ci moom la jaaree. dëgg la. maa ngi koy ziar bu baax. Mhm. di ko jaajëfal moom moom. Mhm. xam na ma xam. macha allah bëgg nag képp ku dëkk Thiès. Mhm. na damay seetlu ci moom ay mbir yoo xam ne da koy def. dëgg la dëgg la koo xamante ne yaa ngi ci. vraiment la nekk ci kaw ñu ngi koy baax dëgg la macha allah sa télé rek. ayca wàññi leen télé bi pour déggante bi gën a mën a neex ah. ki doon wax léegi sama yaay. ah ki <laughs> ma duggaat. <laughs> ay ca mën ngaa duggaat léegi rek. Hmm. jàkkaarloo ki nga xam ne moo di abo incha allahu rabbi ba tey rek ci biir wane ma lay doon mais euh, sans plus tarder. Hmm. mën nañoo profiter dem seeti ji kooku nga xam ne mooy borom baax. Hmm. chez Layla macha allah. moom mi nga xam ne ay xeetu produit am dafa naturel lool. te 15 euh, 15 euh, jours la la jox. nga gis loolu nga xam ne moo di résultat bu baax bi. MD dañuy dem xoole élément bi ñëw léegi waxtaan ci xuus ndax am na lu ma ci jot a découvrir hmm? waaw nañ dem ñëwaat lu baax lu baax du baax ba weesu baax waaye cabinet borom baax moo baax ci jigéen sagal jigéen ak cabinet borom baax dangay mel nu la neex soo bëggee yokk sa yaram def jongama jëlal gamme complet Layla ak gamme complet Layla bii da ngay def jongama bu ne muut foo romb ñëpp xoolaat la soo bëggee yokk say ween wala say hanche kese am na Layla jàppal sa yaram quinze jours rek laa la may ngay fël-fëlaale di sànneeku num la neexe produit yëpp à base de plante naturelle la 15 jours rek nga gis résultat te amul effet secondaire. kon daw si leen gaaw cabinet borom baax Pikine Technopole deux voies arène nationale téléphone 118 115 34 88 wala 76 018 42 41 118. 313 23 24 Touba 77 913 71 01 di eh, borom baax macha allah nee naa leen eh, xeetu eh, produit mi yëpp naturel macha allah kon mën nga a dem seeti ji ko mi ngi foofu ca Pikine Technopole Marina. Mhm. ay xeetu produit am boo ko commencé utiliser 15 jours la la may nga gis loolu nga xam ne moo di résultat bu baax bi. te lépp loo bëgg a yokk ci sa xeetu yaram rek macha allah mën nga ko contacter boo demee benn jigéen meratul. Mhm. waa waaw lépp ci borom baax ñëpp wax dëgg yàlla mhm. ñu ngi ciy yëg seen bopp bu baax a baax a baax ah mhm. muy suñu partie intime yeeg yooyu mhm. noonu yokku euh, taat wala hanche macha allah mën nga dem seeti ji ko kooku di borom baax macha allah chez Layla euh, xeetu euh, produit macha allah rek la ñuy wax ndax xale jigéen di moom ma marina fi mu toll nii ku ci nekk rek yaa ngi fël-fëlaal bi mooy li ma la wax sànq rek nee naa la forme fi mu ne nii moo toj réew mi amul tànk ginnaaw tànk kanam la am du dagg dama fay gis tamit lu day waar mu nekk reyna euh, uh-huh. gofio maïs gofio maïs boobu noonu day baax dafa baax xam naa li ma la wax borom baax mi xam lu baax rek tax muy def yi ak layla bi ak jàppal sa la mm-hmm. am na yu ne de moom am na petit borom baax nag nee la euh, jamono ji ñu nekk Pikine la nekk Pikine Technopole la nekk jamono ji ñu nekk nii mm-hmm. euh, tay coca cola dafa xew li ma lay wax xale ku ci amul tay coca cola da ngay dem seeti borom baax mi mm-hmm. maa la wax loolu tay baas dem robb dem loo def dem borom baax kenn du yow ci réew mi ba mu duggee seen TV ba léegi kenn rëccu ko. ba pare nag livraison partout lay def de. te ñun li neex li neex ci fii sax la ñuy def. Mhm. ñun dañ moom dafa ñëw abonné. Mhm. ñun ñun waa seen TV ñu dem abonné ci moom. abonné ci moom gisoo ñu na. lii lañ def boo ñu gisee deux mois ci ginnaaw. macha allah gisaat ñu nii. Mhm. xam ne borom baax yaa ci mën foofu nag. xale moom fi mu toll nii ñëpp a baax. macha allah ah borom baax yow daal yaa fi ne. waaw macha allah mi ngi noonu kon mën nañoo jël loolu nga xam ne moo di contagam ak adresse am mi ngi foofu ci Pikine mhm. technopole fi xale yi di foowee noonu rek euh, côté euh, euh, arène nationale bi mhm. boo demee rek mi ngi noonu ci kaw tali bi ay ca gis ngeen numéro de téléphone yaa ngi noonu ci suuf képp ku ko woo rek incha allah dina la tegtal nga daal di dem ma macha allah gis ngeen jongoma yooyu ci tele bi macha allah ah, tànn sa bu la neex la nu ngeen bëgg rek mën na leen koo defal kooku di borom baax xaadim bamba ñu koy ziar bu baax a baax a baax ci kóolute gi mu am ci li nga xam ne moo di wane ma ba tey rek ci biir wane ma dañoo fas yéene jëmandoog yéen nag ba 16h incha allah mm-hmm. mais abo fi mu toll nii nag moom doyaluñu moom. waaw mhm. ah, xa xaajaguñu sax ba loo ñu joxaat ñu loo ñu jox rek ñun. ñu yóbbu gunge woon ndax fi mu toll nii dañuy def euh, xaar en attendant. Mhm. loolu nga xam ne moo di euh, téléphone bi daal di gën a mën a jàppandi pour déggante bi gën a mën a neex. Mhm. incha allah fi mu toll nii téléspectateurs yi ñu ngi toog di la seetaan waa Thiès ñu ngi toog di la seetaan rawatina euh, live Facebook bi. ñu ngi xaar lan nga leen di joxaat. من الليالي فشكرت بجخا من الليالي فسكرت بجخا بمني من الليالي فشكرت بجخا

Sëñ Bamba sobal boobu sax nag du ñàkk ñu ñëwaat ci léegi incha allahu rabbi ndax nag man yii dama koy bëgg abo na sa jaamu yàgg rek <laughs> léegi nii sax nag yaa ngi koy tudd sama maam jooj nga xam ne mm. maa ngi koy jooy ba léegi euh, noppeegu ma Chérif Abdourahmane Fall Tilala la ñu ngi lay ñaanal bu baax baax yal na yàlla yokk sa leer te tax ñu sa barke incha allah ñu ngi waajal sax loolu nga xam ne moo di guddi maam Cheikh Fall gi mm-hmm, mm-hmm. Euh, vingtième jour koor gi fële ca mm-hmm. terminus bu euh, terminus bu liberté 5 incha allah ñu fas yéene cee ànd ak suñu xalif baay Aziz Fall ci laa la moom itam ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te weer ah Fall yaaram namm naa la torop incha allah le 3 mai Euh, foofu ca euh, terminus bu Liberté cinq incha allah ñu ngi fay woo ñëpp nag euh, ñu ngi fay woo ñëpp waa guddi maam Cheikh Fall incha allahu rabbi waa vingtième jour koor gi ñu ngi fay woo ñëpp incha allahu rabbi xam naa ne sax nag dinañ ko gën a yaatal dañuy dem léegi nag xool waa service commercial ñoom ñi nga xam ne saa su liggéey bi yembee rek ñoom ñoo ci jàpp ba mu egsi fii nañ dem xool leen ñëwaat léegi ci deuxième partie émission bi ay ci MD service commercial ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen remercier ay ca mën ngeen a def nag comme ñoom indi lool nga xam ne moo di seen xeetu produit yu baax ñu tegal leen ko fii ci Wonema Ah, ndax nag dëgg du neex mooy émission bi mu jëjëtu njëkk a baax war ngeen cee mhm. bàyyi xel bu baax a baax mhm. indi ko uh, fii daf ñu daal di neex lool uh, ñu tegal leen ko fii ba mu wër àdduna gannaaw Sen TV nag mooy uh, télé askan wi ñu ngi ci deuxième partie émission bi fas yéene jamono génn ba 16h incha allah à tout moment mën ngeen a dugg ci 88 628 89 90 88 628 28 28 ngeen bës 2 pour mën a accéder à l'antenne ñu daal di jàkkaarloo yéen ci lu baax waaye nag bu waxtu jotee anniversaire yi daf balaa ñu dem comme ni nga ko waxee rek mhm. ñoo ngi ci deuxième euh, partie wu émission bi waaye tamit du ñu fàtte sama xarit boobu nga xamante ne nii mhm. mooy Papis Degaan muy def anniversaire am tuddee ko waa Axlu mhm. mu nekk le 30 avril incha allah muy organiser benn cant annuel euh, ku ne xam na ni chaque anniversaire am euh, noonu lay demee waaye nag bu ñu fàtte ni sëñ ma moo fay nekk ak Papa Kara Mm-hmm. ah waaye dama ci woo tamit abo mi nga xam ne ah, sama xarit la ndax ku ne xam na ni aboo kay man ak moom ay ànd moom waaw waaw mm-hmm. Mm-hmm. moo fay nekk sëñ axma ku ne xam na ni mooy euh, doomu sëñ Modou Kara bi incha allah dina fa nekk bu baax a baax may nuyu bu baax a baax euh, Sophie Jadit moom nee naa waxoon na dinañu salal de ah. Ah, bu ba tey waaw yéen a ngi koy ziar bu wér wér waaye tamit sama yaay Abdou nee na mere na la lool ci bésam boobu nga xamante ne ñëwoo fa moom awa seer ku mu ñëpp rek ñu ngi leen di ziar. ndeysaan ñu ngi leen di ziar bu baax a baax yëpp rek. Mhm. ñu ngi leen di ziar bu baax a baax. ndeysaan maam Thierno sëñ maam Thierno baax a leen di ziar bu baax a baax. anniversaire euh, bi ñëw euh, yow sama xarit nga amoo looy wax nag am ah? kii sax nekkul sama diggante ak yow yow sama xarit nga sama waay nga amoo looy wax damay ñëw ñu def ndog bu baax macha allah xam nga yow ci ma fekkoon sax expliqué woon naa <laughs> yàlla baax na noonu maman maa ngi lay ziar bu baax a baax depuis Pikine nuyul ma waa euh, famille bi yëpp mm. nuyul ma leen ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax MD dafa am ku nekk ci ligne bi ayca nañ ko jël ayca mbokk mi allo allo ayca dafa mel ni kooku dem na xëcc bu daggul dikk 88 la 628 89 90 88 628 28 28 ngeen bës 2 Pape Cheikh Diallo maa ngi lay ziar bu baax ayca mbokk mi allo. allo allo oui. allo allo oui yaay booy ñu ngi lay ziar. allo allo. allo. allo oui. allo. ñu ngi lay dégg de. dew ma de dew ma de da ngaa coupé. allo. <laughs> MD ngi def lépp sama nopp yi. Mm. ayca na keneen ñëw. 88 le 628 89 90 ayca mbokk mi allo. allo. salaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam. soxna si ñoo ngi lay ziar. sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax a baax. ñu ngi rafetlu émission bi. alhamdulilah noo tudd ak foo ñu woowee. maa ngi tudd Ibrahima Khalil Top maa ngi lay woowee Bambey. Ibrahima Khalil Sow. Top Top. Sok yaa ngi ñuy woowee ba Bambey. Bambey. Bambey Bambey séeréer wala Bambey taax. Bambey taax. Bambey taax ñu ngi lay ziar bu baax a baax. waaw ñu ngi di sant ji di kontaan ci Rijal moomu. Mhm. naa kontaan lool ci émission bi rijaal li muy def am na solo lool. jërëjëf jërëjëf xayil. waaw waaw waaw ñu ngi leen di bëggee. sant yi rafet na tubarkàlla yaa ak soxna soosu nga teel bi ci ak ah, ah, ah, bu baax a baax ci weeru koor yi lii moom am na solo lool. Mhm, mhm. waaw am na solo di sant baax di bëgg sëriñ yàlla moom baax baax di ko ñaanal yàlla defal ko wér a gudd fan. wéral baatam. amiin waay di barke Xaadimu Mustafaa. amiin sant bu baax a baax alhamdulilah. amiin di kontaan moom bu baax a baax ah, ndax nag euh, télé bi moom. Mhm. Euh, euh, ñun téléspectateurs yi rek lañu ñu am. amuñu keneen vraiment. Mhm. rawatina ñi bàyyi seen lépp jàkkaarloog seeni i télé waaye itam jàkkaarloog seeni téléphone daf ñuy daal di neex loolu ngeen ci yëg seen bopp bu baax a baax. Mhm. Aïcha mbokk mi allo. allo. allo oui. ah ça va. allo. Ah, allo salaam. maaleykum salaam. na ngi sant bu baax xamdulilah man la Awa Ndiaye Mbar. Awa njaay Mbacke. Mbar Mbar. Awa Ndiaye. Hmm. Mbar Awa Ndiaye Mbar. Awa ñu ngi lay def. naka koor gi tey. koor gi mi ngi nii rek. ah nga ne koor gi ñu ngi nii rek. <laughs> daa mel moom dafa sonn koor gi da laa jàpp tey. <laughs> tàng rek. <laughs> tey moom sonn allo Awa. Awa loo gis ci émission wane ma bi tey. xanaa kontaan rek. ah yaa ngi koy yaa ngi ci yëg sa bopp bu baax a baax. waaw. noo gisee suñu invité bi Abory Diall. ah xanaa nii. Mm-hmm. kontaan ci moom rek. jërëjëf jërëjëf ñoo gën a bëgg. allo Awa allo. ayca awa dem na bu keneen mënee dugg rek ñu daal di jàkkaarloo génn ci lu baax bu leen fàtte aussi suñu live Facebook 5TV l'officiel mën ngeen a dem di partager loolu nga xam ne moo di émission bi en même temps aussi di dugalaal lool nga xam ne moo di seeni xeetu numéro ndax nag euh, bu ñu wàccee rek dinañ ci tànn quelques numéro daal di jàkkaarloo yéen ci lu baax jox leen ndog wala itam seeni suukaru koor yéen yéen a ko moom ndax nag 5TV mooy télé askan wi ayca mbokk mi allo allo Marie <laughs> allo. dafa mel ni dafa mel ni eh, kooku dafa dem. ayca Marie eh, kon ñu eh, dem ci anniversaire yi rek. bis bi mm-hmm. dellu see neex nag. waaw les natifs du jour. waaw waaw ñoo xewle comme ni ko faral <laughs> njëkk a jox. ayca ana ana ana ki ñuy njëkk a jox. <laughs> kii mooy kan. kii mooy Mansour Fall. Mansour Fall bu baax. alors euh, moom nag euh, vraiment. Euh, doomu yaayu Amira ami ami mooy tantam du mais rakkam moom yónnee euh, bi. pour souhaiter un très bon anniversaire. Mm-hmm. rakkam moo ngi tudd Rama Fall. vraiment mu nekk xale boo xamante ne ma bëgg ba amul ci man sago. ndeysaan ndeysaan jour bi njëkkee te kii di rakkam. kii di magam tudd Mansour Fall ñu ngi koy souhaiter un très bon anniversaire. di ko mm-hmm. ñaanal yàlla gudd fan. amiin waay ak wérgu yaram vraiment Rama tey nag daf ma invité sax ndogu. waaw waaw nee na lay defaral mag ji anniversaire. waaw waaw tey ma invité si Cap Baobab ma ne ko dinaa ñëw. macha allah kooku di ngi ko koy souhaiter un très bon anniversaire. Mhm. Euh, gudd fan wér gu yaram ak sutura gu sax dàq ñu ngi la koy ñaanal bu baax a baax a baax. ak sa sœur bu baax boobu macha allah ami. ami mu baax Rama la tudd euh, sœur Rama Fall. Mhm. moom tam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. Mhm. xam naa ne bu wàccee Marina man moom ay am incha allah <laughs> comme boo may ci MD ana ki ci topp. alors ki ci topp MD. <laughs> alors. kii tamit euh, c'est de la part de Daba Boya. Ah. Mhm. moom mooy Fa Galas. Fa Galas ñu ngi koy ziar bu baax. macha allah di ko ñaanal yàlla gudd fan ak mhm. wér yaram. Mhm. di ko wax loolu du doy la. de la part de Daba ak toute l' équipe Bonama ak Ibundiba. ñu ngi souhaité un très bon anniversaire. ñu ngi ko koy souhaité bu baax a baax kooku di Fa Galas macha moom ni nga dippee sa bopp rek neex na. Euh, comme sa doomu nday ajaratu Daba Boy mi nga xam ne. sëñ Fallou rek la yaakaar macha allah ñu ngi la koy suweetee bu baax a baax. gudd fan gu ànd ak wér gu yaram. ak sutura gu bëree bëree bëri sa doom day nag moo ñu yónni ci yow. Mhm. dama booy <laughs> ah nee na nañ nañ la tagg bu baax a baax. ndax nag waa fi nga ko féetee. Mhm. wax dëgg yàlla euh, doomu nday rek mooy féete foofu. Euh, euh, moromam vraiment kon nag ñu ngi la koy souhaité bu baax a baax nga gudd fan ànd ak wér gu yaram. Mhm. yow sax nag wax dëgg yàlla sa sang ba rek. ku mu àndal rek xel dal na. macha allah faalu aw bu soo bu baax ah? Aïcha des na keneen des na keneen ah. ana ki ci topp. nag ay jumelles lañ ah? ah. Euh, Fatou ak Maguette. Fatou ak Maguette les jumelles de luxe. macha allah ñu leen di souhaiter un très bon anniversaire. la ñaanal yàlla gudd fan. ak mhm. wér gu yaram xale yi dañoo jongoma sax. waaw macha allah dañoo jongoma de. <laughs> te seex yàlla. alors seex ñu ngi leen di souhaiter un très bon anniversaire ah, di leen wax bu ngeen dund nag doyul. macha allah nag moo nekk ci snap bi rek. naan ma defal ñu vidéo man leen bii moo dàq. bii moo dàq bii moom moo dàq. ñu ngi leen koy souhaiter bu baax a baax. Maguette ak euh, Fatou. Ah. Mm-hmm, mm-hmm. ñu ngi leen di souhaiter bu baax a baax un très bon anniversaire ngeen gudd fan wér gu yaram. Mm-hmm. Euh, macha allah ak xéewal gu bëree bëri bëri ñu ngi leen koy ñaanal bu baax a baax a baax. ayca dédicace à maman Ndiaye depuis Kaolack. Mhm. ñu ngi koy bége bu baax a baax a baax Marina. Mhm, maman Ndiaye mi nga xam ne bu wane ma euh, commencé rek day mhm. bàyyi lépp lu mu doon def. jàkkaarloog télé maman Ndiaye depuis Kaolack nangaan Kaolack nag moom du ñàkk ñu dem fa fan yi incha allah ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax euh, MD. Euh, ñu ngi nuyu aussi Issa. Issa bu MD. Issa bu MD waaw Issa bu baax Issa moom itam. ñu ngi koy nuyu lu bëree bëree bëri xam nga MD moom. a euh, tubaab fakkaala macha allah dafa xaw a xew. Mhm. comprendre nga. Mhm. dafa xaw a xew daal waaw moom. xewaale <laughs> <laughs> bi waaw Marie lépp mhm. xeer. mooy def lu doy waar ah, xeer rek dafa gën. ku baaxee nee na saa yu génnee vraiment nag euh, saa yu ñu defaree suñu bopp. waaw génnee gën dëgg la. saa yu ñu waaw tàq ba yaa fu ñu dem dugg fu ñu dem dugg duñ fa sens interdit. Mhm. macha allah ku ah. Ah, waaw waaw. incha allah rabbi dinañ jàkkaarloog moom léegi rek ci lu baax. Mhm. ndax nag xale bi macha allah tubaafakaal lañ koy wax. Mhm. mën na liggéeyam ah, set na loxo. wax dëgg yàlla kenn du moom ayca. dina maadu waaye maadu waaye maadoo ngi noonu suñu waa ji moom itam dañ koy ziyaar bu baax a baax a baax sama xarit bi moom mi nga xam ne nee naa ko bul topp sa jikko mhm. boo waaw boo toppee sa jikko rek da ngay mer loolu baax nerf bi dañ ko gis <laughs> waaw leneen dina am mi ngi noonu ay ca abori abori mhm. fi mu toll nii nag du ñàkk nga mayaat ñu dara moom incha allah ndax temps bi sax nag li ci des bëreetul mhm. mais xam naa ne ba tey ambiance ngay tëjaatee incha allah ndax nag moom fi mu toll nii man damay profité ci yow non li ma gis nii moom ah li ma gis nii doy na waar du ñàkk tamit ma woo yi nga cantal ma ah, mm-hmm. insha mm-hmm. allahu xanaa rek dañuy mm-hmm. xanaa dañuy barkeelu ci euh, li ma doon wax sànq taalif yi nga xam ne maanaam Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni mi ngi koy taalif ci Cheikh Ahmadou Bamba bii nag bokk ci dëgg yàlla Mhm. jamono màggal gi def nañ ko sax benn single mhm. bisu gaaw mhm. bisu gaaw nga génnoon sa kër bàyyee leen war gàkk suukar wax Ceerno mu saytu sa kër uf njaboot gi ñu bañ a bisu gaaw nga génnoon sa kër bàyyee war gàkk suukar wax Cerno moo saytu sa kër wuf njaboot gi ñu bañ a war ca nga leem waa te de wóor na saw la lawbe ba jóge woon doon joxe hadiya cerno dese woon ak sa njaboot doon rogandi akabo lii sa borom ànd kook ñoom doon seen borom te amul woon kenn ci ñoom kuy mën a xam ni yaa dox di dem fu ne ak yow asamaan si di taw ci sa kaw kodd yi yéeg ci sa kaw ku nekk mat mat ñu dadar la woon nat muñ yàppi bay ak yu xar ya di julli tagg borom ya di setantal alxuraan kat yaa ko moom ndax borom nee yaa ko moom yoneen bi nee yaa ko moom jibril itam wax ni yaay borom sëg muñ rafet ci seen kanam yoneen bi daan ñëw ak jëmmam jibril di ñëw naan am nga yàlla ne yaa matale ngam bu ëllëgee ñu la gëmoon mbaate sax ku la soppoon baa ko jël sapp loxo di foon dinañ xam ni yaay kañi dencoon ca démb yaay leer jiitoon ci ndigalu boroom kun fayakoon leeru yonen yaa ka jagoo tafu ci moom ba mucc ci noon Mbàkke sab liggéey rafet lool soxla woog jur soxla woog banay ceebi yakke ci bool kenn ñaarootul ba ci bool lahul wujudu lazi xad zaanahu xidama sant Bamba war la jox mahal ba tëggee. kattan kattan <laughs> fi mu toll nii moom mën naa ah. ne. réew mi ñëpp kontaan nañ sëñ Fallou. Euh, Daouda. Daouda. ak Matar Jembe. Pastef da lay demee sëñ Fallou. ak Serigne Saliou. Mm. dëgg lay maanaam ñoom ñoo ne ci mm. allah. ñu ngi fi ànd nag. suñu mbokk taalibe dëgg yàlla. Mm-hmm. Mm-hmm. Baye Modou Fall. Baye Modou. ak sama jërën Ayoba. Mm-hmm. balaa émission bi di jeex rek dama bëggoon xam tuuti rek sa projet yi. projet moom ñu ngi ci fi mu toll nii. ñu ngi ci daal ndax it euh, li ko lisee in ajal mm-hmm. li maanaam nasaraan bi di wax chaque chose à son temps mm-hmm. ñu ngi maanaam ñu ngi am lu ñuy liggéey fi mu toll ni mm-hmm. te xam naa du yàgg dara dinañ ko fi indi incha allah ci incha waaw loolu des lay doon moom daf ñuy neex lool <laughs> te itam euh, ñu ngi koy euh, xaar fi toll nii nag lan ngay wax waa Thiès ak téléspectateurs yi la doon seetaan rawatina ñi nga xam ne aboori jaar rek la ñu bëgg seen xol. dëgg la dëgg la maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax mm-hmm. maa ngi ziar bu baax a baax sama xarit mm-hmm. international mm-hmm. Vito Mbeng maa koy ziar bu baax di ko jaajëfal. Hmm? noonu la ñuy ziaree waa Thiès ki yëpp nag. ku loxum képp koo xam ne nii maanaam yaa ngi safoo ak a bëggee abo Bambakara rek. ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay. tey di la balaax tey di la barke borom Touba. soxna na net wax dëgg yàlla ñu ngi koy jaajëfalaat. baax a baax a baax man de rëccu ma boole bi ma boole yow vraiment rëccu ma ko nag wax ñu ngi lay saaru baax a baax. Mhm. di la jaajëfal. Mhm. di la wax ni fi nga tase tànk foofu képp la. dëgg la dëgg yàlla. Mhm. soxna Marina it ñu ngi koy saaru baax a baax. dëgg la di ko jaajëfal. mel ni rek kon. loolu la fi jaay li duuf ci nag bi yëpp. xajul ci cin bi dëgg la. dafa xajul ci cin bi. dëgg la mooy tax. yow da ñëwaat sax ak yeneen xiin. incha allahu rabi xiin yi gën a vraiment. Mm-hmm. aboori jàll. ñoo ngi ñaanal lool baax a baax a baax a baax dëgg yàlla sunu waajur wu jigéen. waaw jaan day Sofi Fall. ndeysaan ndax Wolof Njaay dañuy peccum liir bu neexee. dëgg la jàpp ca mag ya moo tax ñu ngi koy ñaanalaat bu baax a baax a baax a baax dëgg yàlla sunu borom kàttanal ko wéral ko mm-hmm. yàggal ko fi lool moo ànd ak wér ba lépp liñ maanaam ba lépp li ñu namm def ci moom suñu boroom may ñu ñu àggale ko ak suñu sago barke borom Tuuba maa ngi ziar nag sama soppe yi sama groupe whatsapp bi soppe yi Abou Bambakara yëpp mhm. ñu ngi leen di chaaru baax a baax muy góor yi fa nekk ak Baye lépp ñu leen di chaaru baax baax groupe whatsapp bi mhm. ñu ngi bu baax a baax a baax biraa yi mhm. waa ji ñu baax a baax a baax aboo xanaa rek di la jaajëfal bu baax a baax ndax nag wax dëgg yàlla li yombul ñu daal di lay woo maa ngi tuub na bu baax a baax a baax di tuub baax di jégalu ndax it mhm. fa laa waroon tàmbalee dëgg la nuyu mhm. kilifa kër gi mhm. <laughs> dëgg yàlla fa laa waroon tàmbalee dëgg la waaye ndem doo ci koor <laughs> xaw a jàpp <laughs> a dee waaw waaw Mari waay. waaw que la demee moom it ah. euh, ñu ngi koy jaar baax a baax. Mm. alaaji bugaan. Mm. di koy ñaanal sa boroom ful. Mm-hmm. ful liggéey bi muy def. Mm-hmm. barkeel ko. dëgg yàlla. amiin sama yaay moom nee na moom da koo bëgg. loolu sax ndeysaan yóbbante la woon. Mm-hmm. neex a bëgg la nag. sama yaay nen ko bëgg loolu wax dëgg yàlla <laughs> ñu koy jaajëfal bu baax a baax. suñu papa baax kenn moom PDG président Bougane Gueye Dany ah président jëm sa bopp ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax di ko jox wàccu waayam mhm. moom itam namm nañ ko lool <laughs> xanaa kay bu ñu wàccee rek ah. man moom dama yor sama ñaari ko yoo xam lu mënta ñàkk foofu moom tey tey dinañ dem d'accord de ah. nañ ko wala wala nañ noppi sax wala wala mu ñoo dégg déplacé wu mi ngi noonu ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax euh, soxna Marina ñu mhm. toll nii nag heure bi jot na ajaratu bi timu seel waaw waxtu bu jotee moom damay sax waaye nag amul solo xam naa dañuy wax dig daje rek. Euh, bu mm-hmm. vendredi incha allah. incha allah rabbi waaye nag MD. Mm-hmm. boo gisee tey li ma saaj. xam nga ah. damaa seen sa pied ah dëgg du neex nag da ngaa saaj nag sama ah, xarit bi prestige madame Sall bu baax mi ah maam jaara bu sa maam jaara bu sa borom kenn moom taalibi Serigne Touba bu mag bi kenn mm-hmm. kenn moom macha allah mi nee naa loo fi daggul rek ay xeet tuni ki tuni gam ci réew mi de ay tuni la yor na de ci pes xale yi waaw def lu ko neex nag day pese <laughs> numéro bi 77 386 26 97 77 386 26 97 di ko jaajëf bu baax a baax mm. waaye. sama bopp bi nag bu jege. Mm. sa bopp jag ku baaxeer mu si génne man bi di nga di nga bu baax. moom mm-hmm. borom benn tari. Mm-hmm. borom ñaari tari borom naa ko fi ne loo teg a gën loo tegul. Mm-hmm. sama waa ji maaru nag mu ngi koy jot. Mm. bàyyi di naan café sama waa ji. dama laa bëgg de. ñu xarit. sama xarit bi jëlal meew te ba tuuti glace muy sedd. mais nag damay dégg bu baax a baax waa ah, mel ni Mdi ak mhm. euh, Maba. Mhm. nee naa leen euh, bu yembee yéen la. Mhm. baax ngeen waaye doy waa rek ay seen càpp. ma ah. <laughs> liir bu neexee ndey jaa jàpp ca mbagg ya kooku di MD ak Maba Baye ñaari Soda Marème ñu ngi leen di béggee bu baax baax yéen a jàpp ci liggéey bi waxoon nga ko léegi Marina kenn du ku Xeer moom mi nga xam ne tey ci tresse la ma génne macha allah. Euh, tresse yu am maanaa waa presse américaine yu am maanaam macha allah mën nañ ko woo ci 77 654 07 79 77 654 07 79 kooku di Kumba Xeer borom benn tali macha allah xale bi nga xam ne euh, lu mu lu mu boppul rek baaxul. mën ngeen ko woo incha allah rabbi prépare loolu nga xam ne moo di korité bi di ngeen ci yëg seen bopp bu baax a baax a baax ah, kooku di Kumba Xeer ñu ngi lay remercier bu baax a baax mais nag Soso Gueye sama waa ji moom mi nga xam ne saa yu baaxee rek moom la moom mooy génne ci yëre yu yanj yi moom itam mën nañ ko woo ci 77 012 15 15 77 012 15 15 kooku di ah, Soso Gueye borom marché HLM yaayu rasul mu ndaw mbokkum yaayam Ngoone Gueye maa ngi koy bégge bu baax a baax a baax ah, di leen jox dig daje nag ba beneen yoon incha allah xam naa rijaal moom da ngay tëjee ambiance rek. benn yoon Aïcha. <laughs> boo ay borom mi ndenge